ministre euh, du Tourisme, euh, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre Boubesbi, en charge <laughs> des relations avec les institutions, euh, Monsieur Sambassi, Monsieur le ministre de nuyu de collaborateur, yi déqale mu nekk site touristique boo xamante ne euh, jour bi ma la ko waxee d'ailleurs livre bi dama ko fàtte indi loon naa la ko parce que li nga ma ci tontu woon mooy nañ ko def nañ defar benn prospectus retracer peut-être l'histoire de Lat Dior mun ko indiwaat pour yi yiñ ci war a def yépp ñu mun ko euh, promouvoir mais je pense que boo xoolee li gëpp solo mooy tali bi nga xamante ne moom moon jóge Euh, yoonu daaru musibi jëm bir loolu buñ ba un kilomètre demi ah buñ ko ba nga ne nit ñi a dem di dem di ziyaare kooku nga xamante ne moom suñu mooy suñu di euh, Latir Diop Latir donc euh, monsieur le ministre loolu maa ngi ci tourisme culturel am solo moo may ñëw ci agence de euh, euh, promotion du tourisme, de, euh, agence de promotion touristique. Parce que dans son programme TAMU Sénégal, man dama si sentirul dara parce que nous nit dafa am gens qui ne la day fa am loo xamante day wax la publicité et tout donc ñun ñu bari dañuy bëgg ñu fi actuellement muy étranger yi di investir au Sénégal xam nañ ko man surtout partie bi ma nekk Italie gis naa légui gën nañ ko bëgg té lolu ñun ñoo continuer di jaay destination Sénégal di joggé fi di dem amna ci ñu bari yo xamantene xalaatu ñu won né war nañ mëna a fi fii installé fi tay amna lu ñu xam di fi installé di fi def ay ay ay ay lu ñuy wax euh, hôtel yu ndaw donc loolu baxna na ngeen gën leen oyofal gën leen yolamal bañu gëna mëna dugg ci di wax euh, rek euh, monsieur le ministre ci euh, fi di King Fat Palace wax nañ ko ah am nañ ci tamit léralu yu bari yo xamanteni mi ngi joge ci son directeur général mu mu jot ñu ci ubbeeku am ubbeeku parce que loolu moy rôle député so déggé dara wax ko li la ca xew ñu léral la ko donc monsieur le ministre ñu wax ni travailleurs yi fa ñu jëlé leen fa nañ leen réintégrer rek parce que ñun tamit sénégalais yi ñoo ñu fi indi té sénégalais yi ñu fi indi suñu waxtaan moy suñu amé nakar wax ñu ko ñun en tant que député ñu kassal leen ko té nak euh, tourisme culturel bi bul ci le département de Pékin nga défal ñu lo xamanténi au moins touristes yi dinañ ko mën di déw ñu visiter ndax ñun tamit le Pikine représente une très grande histoire dans l'histoire du Sénégal euh, donc bu la ñu assalamu alaykum wa rahmatullah asalaamaaleykum monsieur le ministre ma ngi lay nuyu di nuyu ministre yi nga togal yépp ak ñi ngeen andal yépp di leen jox sama love di nuyu sama mbokk député yi di leen ñaanal yalla yal nañu yalla may ndam tay ñu boole xol yi rek lu ñu bëgg dañ koy am monsieur le ministre man minak nak tay man nga wara waxal yëf yi moom kenn waru wax tey yëf sama yëfa man artiste bi man man mi wone aaru senegaal fépp ci monde bi laa wax maa taxaw fii di wax moo tax tey ñépp war ma déglu ba may doon xale fii ci réew mi am fukki at ak ñett turist yi dañoo meloon ni weñ ci réew mi ndax lan aaru Sénégal lañ doon seetaan si

ma dem fu ne ci àddina bi monsieur le ministre man mii nga war a waxal ñu ànd seeti ministre de la culture ànd dem seeti directeuru bale yëpp ñu suqaliwaat aar bi artisanat bi mën a dox dama daan fàttale ko bu ñu musaan a tukki li ñu may fay man li may jaay ci aar moo ëpp li ñu ma daan fay ndax damay lal sama taabal fecc ci théâtre yu ëpp yii wane culture Sénégal bu ñuy taj ñu jox ma drapeau Sénégal bi ma téye ko ndax maa ca gënoon a nekk xale mais léegi nii touristes yi ñëw fii xale yi lañuy ñëw di jël jigéen ñi di yóbbu di leen toroxal di leen jàngal lu bon ci diaspora bi laa dëkk nañ leen suqali aar bi artistes ci réew mi sonn nañu Pélé Senghor gii la ñu nekk soo leen gisee da leen di yërëm te ñoom ñoo mën a indi touriste yi ci réew mii aar bi du leneen aar bi dangay sol sa mbubb mu rafet tëyër ñaw ko touriste ñëw nga jaay ko ko trois cent mille cinq cent mille amatul ci réew mi tubaab yi jigéen lan fiy wut si seetaanatuñu dara ma lay ñaan nag man mii ngay waxal ministre de la culture ñu dem seeti bépp bale bu nekk fii ba abdu Diouf jógee ci réew mi la aar dee parce que Senghor dafa bëggoon aar fu président Macky Sall dem aar war na ànd ak moom muy séeréer tukurool joolaa balant mais lu ma la ci feccal nga yuuxu fecc rek laay def <laughs> moom rek laay def lu ma wax fecc laa gën a man kon boog il faut ñu dimbali artistes yi pour li nga bëgg yow mu dox artistes yi rek ñoo ko man nga ànd ak artistes yi ñu liggéey réew mi indiwaat turist yi ñu gis lu rafet li ñu am ci réew mi du ay saaga rek la am du ruube rek lañu ñu am am nañu rafet lu tubaab yi mën a ñëw seetaan si fii ci réew mi benn gore Island a ngi lu ñu wax ñu ne gore Island moom la ñuy jaay moom la tubaab yi bëgg a ñëw xool war ngeen ko defaat beneen reportage boo xam ne man maa ngi dëkk Las Vegas nee naa la man ngay waxal fa touriste dëkk man falaa dëkk communiqué ak Las Vegas maa yor caabi Las Vegas man man la ko meeru Las Vegas jox ne ma du whatever you want kon man mii nga war a waxal yëf sama yëfa tey tëj leen yëf yi <laughs> man maa moom yëf yi tey ndax ci touriste la ñuy wax te xam naa liy indi touriste ci réew ndax mooy sama liggéey man duma politicien man makiste laa man artiste laa man damay jaay Sénégal looloo ma yóbbu Amérique may jàngale fecc ci école yi gëna mag ci Amérique boo nee kura en Njaay dañ naan la best dancer in the world waaw boole koog di leen jàngali wolof boole koog di leen waxtaaru Sénégal ak li am Sénégal mais artistes yi dunduñu ko monsieur le ministre il faut que artistes yi ñu dundal leen fii ci réew mi sama mbokku artistes yi ñoo ma yóbbu